rubrique santé ñu dugg ci li nga xam nag moom mooy mariage précoce soxna Amina rek damay daal di li nga xamante ni moom mooy sujet bu ñu indi tey professeur Gaoussou si wolof nan mooy mariage précoce mariage précoce mooy may sa doom te agul nekk jigéen parce que xale bu jigéen am na bébé mhm. am na fillette mhm. am na fii mhm. am na femme n'est-ce pas oui bébé am na fillette am na fille am na femme am na femme mooy jabar ku sëy fillette bébé mooy ku dóor liir d'accord mooy jànq bu ndaw fii mooy jànq femme mooy ku mat a sëy donc eh, étape yooyu eh, bu ñu ko àggulee ñu may jabar eh, ñu may ñu may ko jëkkër ñu tuddee ko mariage force walla mariage précoce ci tubaab loi sax daf ko tere. léegi ci ban at lañ mën a wax jàpp genre dix an quinze ans dix huit ans ci lañ mën a wax ne kii mariage forcé la. mariage forcé jël sa doom maye ko koo xam ne nobbu ko nobbu ko mhm. dégg parce que mariage forcé ak mariage précoce du benn mhm. il faut que mu leer mhm. am na koo xam ne sax sa morom la mais ñu maye ko keneen buggul ñu forcé ko xam nga loolu du mariage eh, eh, précoce mais fii suñu problème tey defe naa mariage précoce lañuy ñuy wax mhm. ñoom ñu loolu lañu bëgg a waxtaane mhm. n'est-ce pas mhm. et bébé kenn du ko jox jëkkër fillette kenn du ko jox jëkkër fii kenn du ko jox jëkkër dégg ku mat a jigéen ki borom xam-xam li ñuy wax xale bu jigéen bu am dix-huit ans békki kaw kooku mat na jabar boroom xam ñoo ko wax de dégg nga étant que chaque chose boo gis rek am na exception il y des cas de des enfants loolu am na mm-hmm. mais exception boobu dañ ko teg de côté lu ñuy lu ñuy soxal tey mooy en général mm-hmm. dégg nga xale bu xale bu jigéen buy mag buy mag buy mag ba àgg dix-huit ans eh, mun nañu wax ne eh, organom yëpp mag nañu dégg looloo tax eh, bu ñu ko mayee avant dix-huit ans mhm. toujours lu gën a bare dina am problème problème d'accord waaw dañu gis ni Pagawsu chaque année quinze millions de filles dañuy dund li nga xamante moom mooy mariage précoce lan mooy raison yi raison bi bare na mhm. ñàkk ñàkk mooy première raison la pauvreté pauvreté supposons que nga am eh, six six enfants ki kër ga nga am juróom benn doom ñetti góor ñetti jigéen bu kenn ñëw ki da sa doom bu amee quatorze ans fukki at ñeent mu ne bëgg na ko jabar te yoroo dara muy indi xaalis jox xam nga kooku bu demee et eh, sa coono et eh, sa eh, dundal bi de y a une bouche de moins. de moins waaw dégg yooyu c' est l'une des causes. Mm-hmm. dégg nga deuxième cause bi. Mm-hmm. nit yi dañu ragal bu xale bi màggee kër ga mu ëmb ñu ëmbal ko. Mm-hmm. dégg nga te du xam ku koy ëmbal. mu gàcceel mu nekk gàcce. donc yooyu yëpp ay cause la yoo xam ne nit yi dañu koy précipité. dañu koy yàkkamte looloo tax. et de des cas comme ça mhm. léeg-léeg xale bi sax mariage boobu du continuer parce que dañu ko forcer mais bu demee xam àdduna dégg nga ku ñu ko jox du jëkkëram dégg nga te mënu ko yor mhm. dégg nga alors euh, toujours xuloo toujours xuloo finalement divorce am na. divorce am xale bi du ñeme dem kër papam mu dem ki moromam mhm. dégg nga mu nekk foofu dégg nga bu amee sens fekk e, jëkkër jooju ombal ko bu fekkee ne am na sens fekk jëkkër jooju ombal ko mais bu fekkee ne ëmbal na ko mu am doom xam nga kooku xale bu ndaw la xale bu ndaw mënu yor xale bu ndaw n'est-ce pas mm-hmm. donc yooyu conséquences yooyu e, dina ñëw julaal e, les femmes de la rue par exemple il faut mun dundal xale bi mm-hmm. mu koy dundale mm-hmm. papam rejeté na ko yaayam rejeté na ko dégg nga mariage tas na dégg nga mariage tas lu muy def il faut mu dee wuti eh, lu muy dundal wa lu muy dundal doomam wala lu muy dundal boppam loolu lu gën a bare mooy jur eh, eh, déedéet du mari lu mooy jur ñu jaay seen bopp donc loolu la ñuy daw loolu la ñuy gëstu pour loolu bañ a am ah. il faut que ñu bay xale yi dégg mu am raison dégg nga dem faire son choix. Euh, euh, mu au moins dix huit ans. ñu koy gën fii si Sénégal si chez aussi tamit. Mhm. parce que euh, ki ki Dakar sax. Mhm. Mhm. à la rigueur docteur yaa ngi fii. ils sont bien équipés. mais en en brousse en campagne yu gën a bare. et mortalité maternelle dégg ngeen ko toujours xale bu matul nekk bu matul nag bu mënul aussi mënuñu ko def césarienne mënuñu ko def dara day gaañu. déedéet. day ak doom bi donc yooyu yëpp conséquence la mhm. loolu tax ñu ñu ne eh, gouvernement bi mhm. eh, yore loi boo xam ne pour kuy may sa doom nga muñal ko au moins ba mu am dix-huit ans dégg nga mais il eh, y a problème aussi mhm. parce que lu gën a bare surtout ki monde rural bi xale yi léeg du ñu xam kañ la juddoo dégg léeg-léeg du ñu xam kañ la juddoo. amul kayit amul dara. dégg nga da ngay xool eh, jëmmamam rek maye ko dégg nga loolu yëpp euh, problème la indi. d'accord loolu tax eh, war nañu góorgóorlu ku am doom nga dem déclarer ko pour au moins nga maîtriser sa côté âge bi dégg comme mariage précoce la wax tey am na yenn pratiques yi nga xam ne traditionnelles yi nga xam ne par exemple si yenn ethnie ñoom xooluñu. âge beeg yooyu noonu ñoom âge bu ñu am par exemple dañuy am doom doom bi am 12 ans rek ñu mayee ko mu sëy. su ma dëkkandoo la jóge bitim réew ñu may ko xale xale boo xam ne 12 ans la mu ne kii lañu la may mu ne dee dëgg dëgg dëgg kii xale la ñu ne ko en tout cas kii lañu bu la neexee yóbbu ko dem jox ko sa papa mu yar ko. dégg nga bu màggee nga ñëw jël mais kii kii lañu ñu la may xam nga déjà eh, jur nga doom yarloo ko nga bëgg keneen yaral la ko est-ce que tu vois parce que 12 ans naka la 12 ans nekk mën a nekk jabar 12 ans fukki at ak ñaar te loolu am na ci Sénégal am na Sénégal dëkk bi dëkk bi dégg nga fukki at ak ñeent naka la mën a nekk jabar dégg nga mën na yor kër kooku mën a yor kër fukki at juróom sax mënul yor kër. loolu tax ñu ne boroom xamal ñu ne xale xale mag moo yor xale loolu tax ñu def loi boo xam ne au moins pour protéger eh, les enfants dégg nga ñu am à certain âge regarde par exemple eh, xale buy jàng jëkki-jëkki rek ñu may ko jëkkër loolu na ma sax suma suñ suñu mbokk benn mbokk mu gis suñu benn xale boo xam ne yàlla yàlla may na ko xel très brillante mu ne moom la bëgg comme jabar ñu ne ko kii dee jàng mu ne déedéet man kay takk rek takk leen ma boole ma ko takk naa ko bay mu jàng ba pare ma ma jëli ko <laughs> ñu takk ko <laughs> ñu takk ko <laughs> même pas un mu ëmbal ko te kooku waroon na passé bac mm. toog na léegi un retard quatre quatre ans presque dégg nga ah, jàngoom euh, yàqu mm. ren la door a am bac donc yooyu yooyu yooyu yooyu mënoon nañu ko éviter dégg nga en laissant au moins l' enfant dem ba mu am bàggam. dégg gis naa koo xam ne tamit maye doomam 15 ans la ko maye. Mhm. doom bi buggul yaay buggul dégg nga jëkkër gi mu fase yaayam génne doomu kër bi est-ce que tu as bi mhm. doom bi yàlla def. mu dem débrouiller ak doomam bi ak yaayam bi ba mu am bagom mu am bagom dégg nga am bourse bu baax dem jë jënd euh, jàng Maroc à vingt trois ans et demi presque pare na jàngoo parce que soudure la xale boobu dégg nga papaam gis loolu dégg nga mu ne ah dëgg dëgg dëgg baal maa dugg fii génn fii fekk doomam mu ne ko yaay bi moo mooy mooy influence doom bi mu fase ñoom ñaar yëpp dégg mais donc yooyu toujours day indi conflit daal dans la famille bu ñu ko éviter dégg nga may xale xam nga léegi léegi booy xoolee sax école yi sax léegi xale jigéen yi sax ñoo gën a bari xale góor yi dégg nga dem nañu benn visite euh, benn école bu nekk Wakam les trois premiers ne astafurlah les neuf premiers yépp jigéen les neuf premiers ay jigéen lu tax jigéen yooyu du ñu leen jàppale ñu jàng au moins dégg ñu jàng au moins ba ba am à certain niveau il foo ñu forcer leen dégg dem jox leen jëkkër yàq seen jàng yàq seen avenir loolu vraiment et marocains yi jóge nañu Maroc ñëw fii def ñu journée de caravane de de sensibilisation def nañu ko bokk naa ci caravane boobu donc loolu tax lu nga indi lii il faut jar na wax dégg nga sénégalais ñu xam ne suñu maam yi xëy na dégg nga yooyu da du ethnie yëpp de ñun joolaay de du ñu ko def. waaw c'est vrai du ethnie yëpp. du ethnie yëpp. dégg nga mais am na ethnie yoo xam ne yooyu xale bu amee 12 ans rek ñu may ko jaw jëkkër mais ah, parce que am na façon yu ñu ko def parce que kooku dañu ko may mais dañu ko may pour mu yar leen seen doom parce que yooyu kooku du jabar kooku matul jabar matul jabar waaw. rapport ak mariage précoce. Mm. yenn ethnie yi nga xamante ni ñoom appliqué wu ñu mariage précoce dañuy ignorer que ñu ngi enfreigner loolu am na. Mm-hmm. dégg ñun sax ci su suñu caravane bi. Mm-hmm. bu ñu demee di sensibiliser. dégg am na benn oustaz bu joxe jóg taxaw mu ne waaw lu ngeen wax ni dégg la wante eh, xale bi bu nekk sa kër benn buur. du loolu moo gën a garaaw. moo gën nga jox ko mu nekk xale bu bu nga yar dégg dégg dégg dégg mu mun a mun a dégg respecté papaam respecté yaayam du de du kenn parce que boo gisee xale di biir manque de communication la. manque de communication. manque de communication la parce que suñu tabu yi dañu bari trop loo xam ne du tabu sax dañ koy def tabu. moom mooy virginité moo tax à chaque fois dañuy bëgg gaawantu maye seen doom pour mu ñu bañ a exactement exactement te yooyu vraiment et eh, je crois que. Eh, aada boobu war nañu ko seet parce que suñu aada yi am na lu lu ki baax am na loo xam ne baaxul vraiment may sa parce que bu fekkee ne eh, du médecine nu mu avancé nii xotti jigéen à gauche droite dindi doom bi te xam nga médecine traditionnelle munu ko. mënu ko mënu ko mënu ko. césarienne dégg césarienne ko. Mm-hmm. donc loolu de côté d'un côté médecine moderne soulagé nañ toute situation bi mais. mais mais est-ce que santé boobu xale boobu bu ñu xotti biir bi est-ce que kooku dina mun a am santé normal comme koo xam ne mosuñu xotti biir bi. Ah, mariage précoce mën na indi li nga xamante ku jigéen ki stérile góor bu am doole ñu may ko xale bu tuuti bu am ne amul doole mu dem sa yàq moom xam nga daf koy yàq mën na détruire sax certains organes yu internet bu xale bi bu ko yàq kooku dootul am doom ba faw dégg nga butit jurkaay bi dégg nga bu ko yàqee dootu am doom ba faw parce que kenn mënu ko remplacer kenn mënu remplacer butit butit jurkaay looloo tax ñu ne certains eh, mariages mariage dégg précoce dégg nga et eh, eh, vraiment fekk organe xale bi développé lu mu war a développé nga dem yeneen actions yi boo ko defee da ngay yàq xale bi waaw waaw tu as vu même certains enfants yoo xam ne eh, dañ leen violé ñu gën a bare ñu am doom violé xale boo xam ne matul bu bu ñu góor-góor médicalement toppatoo loolu eh, lu gën a bare dañuy ñàkk am doom walla bu ñu amee doom problème waaw bu ñu amee doom problème la euh, tey euh, ñu ñëw si li nga xam ne mooy wàllu wàllum faj bi euh, si wàllum faju aada ak cosaan mm-hmm. yaa sànq ba tey ngi wax si si si si conséquences yi li mu mën a jural xale beeg yooyu yëpp quoi mais médicalement comme moom ni mu ko waxee léegi laaj na léegi am na ñi xam ne dañuy dem ba dootuñu mën am sax doom mais kooku ñuy xale boobu ñu xam ne dañ koy teel a maye à part ñàkk am doom boobu ak yan yan conséquences aussi tamit ñoo si nekk si nga xam ne si côté côté côté côté côté médecine wala côté médical xale bi bu fekkee ne développement bi mu ngi développé nit mu ngi mag. Mm-hmm. docteur yi ñu ne daal eh, nit màggaayam entre vingt cinq vingt six ans lay am organe am di di développé di développé entre vingt cinq vingt six ans lay yem. lay yem à parti loolu. kenn dootul mag dootul mag dootul mag. Mm-hmm. sauf cas exceptionnel. Mm-hmm. dégg nga stress yeneen yeneen situation yi exceptionnel mais bu du loolu organe yëpp mat nañ. fekkee ne organes yëpp mat nañ loolu amul benn problème mais bu fekkee ne détruire na yàq nañu xale bi depuis depuis douze ans. Mhm. dégg nga ah vraiment organe boobu bu ñu yàq eh, bu ñu yàq eh, mënul développer mënul nekkaati normal. léegi bu ñu bu ñu ñëwee si li nga doon wax noonu médecine moo si si côté médecine yaa ngi doon wax ni tey jii léegi par euh, xale bi bu fekkee matul euh, mu ëmb euh, bopp doom ji ëpp li nga xam moom mooy. hanche bi waaw li nga xam moom mooy kii bi donc. yooyu il faut nga expliquer nit ñi pour ñu mën a comprendre que ni yooyu si si conséquences yi la la bokk. waa parce bi hanche bi. Mhm. bassin bi. dafa étroit. Mhm. dafa am diamètre bu muy am ba sa jigéen. dégg nga eh, yàlla daf ko natt pour doom bi bopp bi mën a génne d'ailleurs am na ñoo xam ne sax eh, dañuy dem sage-femme dañuy xëcc xëcc xëcc ba tàmm loxo bi wala eh, loxo bi am problème wala mbagg yi am problème parce que femme boobu dafa xat. malgré piqûre yooyu ñu ko def rek pour mu gën a yaatu dégg yooyu yëpp dafay indi problème mm-hmm. combien de d'enfants yoo xam ne ils sont sorti avec euh, un bras handicapé des choses comme ça en pagaille parce que seen waajur yi dañu xat dégg surtout nag koo xam ne matul ku matul nag xam nga problème la léegi man pagasu man ci lu ma bëggoon wax mooy par rapport ak xataa bi parce que yaa gis ku nga xamante ne sax day majeur am ay 30 ans xat waxuma xale bu nga xamante ni yaa ngi am ay 13 ans nga bëgg am doom xam nga par exemple xam boo amee doom da ngay da gën a yaatu yan conséquence la mën a def si ku jigéen ki mën na indi li nga xamante ne moom mooy tamit ay euh, feebar genre ay je je dirais pas perte mais ay euh, le mot me ay complications par rapport ak li nga xamante ni moom mooy butitu euh, jurukaayam. yaa ngi bëgg wax ni ku voilà ëmb. Mm-hmm. te mënul aussi normal. Mm-hmm. loolu ci tubaab yi dañuy dañ koy def césarienne. césarienne mais ñun ci traditionnel yàlla may nañu ay loo xam ne boo ko defee ku bëgg am doom dégg eh, du yàgg mu am doom. Mm-hmm. loolu j'ai vécu ça dundal naa dund naa ko suma benn xarit bu may dem liggéey mm-hmm. damay jaar eh, saam quelque part là. Mm-hmm. fu ñu ndékki ñu ndékki foofu moom mooy suñu serveur moom moo moo ñu servir benn bés man mu ñëw mu ne ma Samb dégg naa problème ma ko ban problème mu ne ma sama jabar à terme docteur bi mu ne l'enfant et mu ngi mu ngi toog comme buur nangul juutu nangul ñëw ci bopp bi te amul beneen solution bu dul xotti biir bi mm. dégg def césarienne donc jox na jox na ko jox na jabaram eh, eh, analyse préopératoire analyse boo xam ne dañ ko war a def. pour balaa ñu ko césarienne. Mhm. dégg pour ñu seet bu ñu ko xottee combien de temps lay am di saigner combien de temps lay am deret di woy yow yëpp dañ docteur dañu koy seet. Mhm. temps de saignement temps de coagulation ainsi de suite. Mhm. dégg mu ne loolu la ko jox. te moom amul xaalis pour def ay analyse yooyu lan lay def est-ce ak àgg na à mu ne ma wéy àgg na parce que eh, neuf mois passé na mm-hmm. dégg nga d'ailleurs eh, na depuis eh, prévoir pour ñu ko prévoir pour wasin passé na quatre jours mm-hmm. loolu te docteur bi bind kayit bi ma ne bu keneen loolu rek la nañu dem mu ñëw suma cabinet ba ma jox ko lu ma xam mu dem jox ko jabaram mu dem liggéey dégg nga le lendemain man gis ko mu ne ko est-ce que mu ngi naan garab bi mu ne ma ah mu ngi naan démb la ba ma ñëwee sax commencé na démb le lendemain mu dem liggéey dégg nga bu mu demee liggéey à dix heures ñu woo ko ñu ne ko am nga gan. Mm-hmm. xamul gan ban la ñu ne ko mu ne ban gan la mu ne sa jëkk sa jabar am na doom bu góor fii la wasin ki kër ga waaw ah, ñu yeexee foofu lay dégg hmm. donc bu jëlee taxi ñëw kër ga jël jabar bi yóbbu ko ki docteur docteur ne ma hmm. lii naka la mën a amee mu hmm. ne ko xam ah, kay sàmb moo ma jàppale ba yàlla def def eh, jàmm donc kooku man dund naa loolu suñu maam yi am nañu ki xam-xam dégg loolu nag du bakkuwaay yàlla moo ci dugal loxoom. ci loolu su loolu du takkarnaas. mooy bi eh? ngay naan rek gaawantu am doom. Eh? bokkul ak takkarnaase. mu ne la bi ñuy wax takkarnaase xam nga am na beneen bi wax takkar takkarnaase cest à boo kii boo ko naanee rek rapidement boo moytuwul da ngay am doom. ya wala man de xam nga nit ku nekk ak nu muy fajee. ak nu mu koy mm. tuddee man takkarnaase maa maa ko door a dégg tey. Mm. mosuma ko dégg. Mm. dégg mais man lu ma jàng te ma def enquête. Mm-hmm. loolu laay jox nit yi dégg en tout cas de am naa ki dégg nga waaye si xat boobu boo ñëwee tamit euh, waxuma sax euh, li muy mën a yàq si xal bi mais des fois moo indi ay hémorragie yi mm. bien sûr parce que dootuñu mën a arrêté deret bi dégg nga day indi complication finalement mm-hmm. nit ki dee anémie à fond bu amulee butéel yu bare pour ñu ko sos eh, mun na faatu eh, eh, maire bi mun na faatu xale bi faatu d'accord mm-hmm. ba léegi paga suñuy waxtaanee ci li nga xamante ni moom mooy le mariage précoce est-ce que mariage précoce mën na indi li nga xamante ni moom mooy euh, ay euh, moo balaa fàtte. waaw waxee ñu kii ko ñu ñu ëlbati ko rek waxal. ay ndaanaan. Mm-hmm. Hmm? man ci suñu ah, eh, caravane bi bu ñu mm-hmm. defee mm-hmm. dañu dem benn école dégg nga ñuy wax eh, ñuy wax ku nekk def lu mu wax lu mu xam mm-hmm. benn ustaas jóg dégg mu ne voilà eh, balaa xale bi biir sa kër jox ko jëkkëram mu dem biir foofu dégg léegi d'ailleurs d'ailleurs Mohamed sallallahu alayhi wa Eh, ja benn jabaram xaw ma ne waa na xaw ma dix ans ma ne ko sama waay bul wax loolu Mohamed bul ko jël di ko méngale nit man Mohamed du moroom kenn yàlla lu mu ko may mayu ko kenn mm-hmm. dégg kon nag booy waxee loolu dégg eh, da ngay indi problème xale yëpp jóg ci ustaas boobu mm-hmm. dégg ñu ne ko eh bu ñu yàqal yow da ngaa bëgg yàq suñu jàng bi ñu ñu ñu dem maye maye ñu à 14 ans à 12 ans mm-hmm. ñun d' accord d' ñu tey mm-hmm. d' accord ñu ne xale yi ku ñu bëgg a may à 12 ans wa 14 ans mm-hmm. dawal dem police appliquer la loi dégg demal dem police amul baay amul yaay donc kenn warul may sa doom koo eh, xam ne te matul may du yoon boo waaye ñu ne l'islam l'islam l'islam am na lu eh, eh, lu mu defar bu baax a baax. dëgg l'islam waxul nga may sa doom pour nga bañ a ko yar. est-ce que l'islam tere na eh, nga yar sa doom. déedéet déedéet. l'islam dafa ne nga yar sa doom balaa nga koy may. nga bañ a yar sa doom nga bañ a jël poids bi. nga ne l'islam nee ne ne mën nga may dugg fii. des a nag nit ñi bu wax l'islam bi l'islam bi l'islam. waaw bu leen wax leneen. non fi ñu koy jàpp ni xëy na mën nañu ko may à 12 am na si liir bi. lañ leen di may liir lañ leen di waaw loolu takk laam bi loolu moom nga jàpp ni lañ la koy jox lan la koy jébbal yooyu yooyu bu fekkee ni si règle yooyu amul amul amul amul amul amul amul ngaañ mais li bon moom mooy à douze ans wala dix ans wala quatorze ans wala quinze ans nga xale bi tuuti nga nga koy maye pour mu sëyi loolu moom wax dëgg yàlla uh-huh. euh, problème la voilà problème la il faut que vraiment ñu di def ci sa xel waaw léegi man faagaasu question bi ma bëggoon laaj mooy mm-hmm. est-ce que mariage précoce mën na indi li nga xam ne moom mooy infection ci ku jigéen ki mm-hmm. ah <laughs> infection euh. déedéet infection feebar la. Uh-huh. feebar la mun na dal góor mun na dal jigéen. Uh-huh. dégg nga mën na dal mag mën na. mën dal dal mag mun na dal xale. Uh-huh. dégg bon par exemple am na benn infection bu ñu wax perte blanche. ñu gën a bare dañu defe ne eh, ku bare eh, partenaire moo koy am dégg nga fekk du loolu. nit mun na am infection fekk xam mosul tëdd ak góor. góor mun na am infection fekk mosul tëdd ak jigéen. d'ailleurs man am na lu ma jaaxal ci wax olof walla feebar jigéen da nga gis sax góor bu am infection mu ne damaa tëddoon benn jigéen moo ma jox lii dégg nga wala nga dégg jigéen mu ne damaa doon góor moo ma jox lii donc feebar feebar góor mun na ko am jigéen mun na ko am mun nga am infection sans même connaître euh, même étant vierge mun nga am infection étant loolu dund naa ko gis naa ko waaw loolu nga set bu ëpp sax mën na joxe li nga xamante ni moom mooy infection ndax yenn produit yi nga xamante ni moom la ñuy utiliser si partie intime yi mën infection yi waaw su fekkee amul monsieur Ibrahima Ndiaye wala coach ku mm-hmm. amul laaj rek donc coach de euh, tey moom daa noppi xaw ma lu voilà donc euh, tu as des problèmes non pas de problème mais c'est que dama doon euh, déglu religieusement Pagaoussou ah tey tu écoutes religieusement waaw non non je l'ai toujours écouté religieusement waaw mais des fois chauffé non non non non bu indi ay problème parce que mosul am loolu c'est que nag euh, man euh, man dañ may toon rek. Mm. noo tey du laaj du laaj la. <laughs> terminé ak euh, toujours rubrique santé ñu waxtaan si li nga xam nag mariage précoce conséquences yi nga xam ni dina koy faral di jur. Mm-hmm. am na loo doon nettali Pa Gaoussou. dama ne woon mm-hmm. amoon naa benn cas boo xam ne mm-hmm. eh, jëkkër gi dafa jóge France ñëw. ñu may ko jabar jabar xale bu ndaw la dégg nga maire yi di xaar seen pour seet la eh, sœur bi nu mu mel xam nga eh, moom mu ngi dans la sa sa dans la chambre à coucher avec jabaram maire yi ñu ngi salon bi ak géwél yi ak eh, tëggkat yi ñu ngi tëgg ñu ngi fecc de quatre heures du matin ñëpp dem ñibbi ba seet maire yi ñëw seet gis ñu benn trace kii gis ñu benn mandar dégg nga eh, ñu laaj jëkkër ji jëkkër ji ne ah man de man mënuma ki dara mhm. dégg nga yëgul boppam daal waaw yëgul bo yëgul dara dégg nga eh, xam naa ne lu ko indi mhm. mooy coow li yu nekk kër gi mënul concentré ki jabaram mhm. dégg nga coow li bare dégg nga tëgg yi ay yooyu gars yi ne dañ ko takk xala <laughs> dégg uh-huh. ñu dem seet sëriñ yi sëriñ yu gën a mag yëpp sëriñ yu mën a affaire yooyu dindi xala <laughs> ku nekk ñu ñu fay ko defee la dara ñu def ko ba mat semaine mënul mm-hmm. dara ki jabar ji ba mat semaine naa ah. mm-hmm. benn bés eh, ñu daal di ko indi ki man bu ma raconté histoire bi ba mu jeex ma xam ne kii dara jotagatu ko. Mm-hmm. mais il est stressé dégg nga dafa dafa àgg foo xam ne eh, neeram du ko mën a nangu. Mm-hmm. ma dem utal ko benn garab boo xam ne c'est un tranquillisant c'est un calmant dégg nga ma baaxal ko maa suma laboratoire bi sol ko butéel jox ko rien que pour kenn bañ a xam lu mu doon. Mm-hmm. mais du garab góor de. mais tranquillisant la. ma ne ko léegi bii da naan suba midi takusaan ngoon suba midi takusaan ngoon mhm. mu def ko une nuit deuxième nuit affaire bi baax ñëw may ma xaalis bare <laughs> kontaan dégg nga man maa man maa le grand marabout ma ne ko déet du ma marabout <laughs> man xam naa ne yow dara jotu la mhm. mais bu ñuy bu ñu la def eh, bu ñu def kër bu ñu bu ñu animé stressé waaw absolument wala stressé ak ñi nekk toujours ak côté donc yooyu yëpp tamit loolu aada yooyu ba tey mu ngi fi de mu ngi fi ba tey mu ngi koo xam ne yàgg na bitim réew bu ñëwee boo leen defee loolu day am problème du sotti voilà du sotti donc pour terminer euh, les lan ngay jox gars yi comme conseil euh, les les les conseils conseils euh, yu ma bëgg a daal mooy père de famille mhm. dangeen di waxtaan ak seen doom mhm. mère de famille da ngeen waxtaan ak seen doom. wàññi sujet tabou yi dégg nga tabou yi suñu tabou yi yoo xam ne c'est des faux tabou. Mm-hmm. xale boo xam ne bu gis règle mu jooy mu ne waaw yaay lii gaañu ma dara dara jotuma ma gis deret sama kanam nii la yaay loolu lan la. Mm-hmm. parce que il n'est pas préparé. Mm-hmm. mère préparé leen seen doom yi. jigéen pour ñu xam. dégg nga luy règle pour ñu xam luy perte blanche. Mm-hmm. dégg nga perte blanche am na perte blanche yoo xam ne si naturel jigéen bu gisee règle rek balaa mu gis dina gis tuuti ndox bu weex bu génn kanam bu pare tam dina ko gis yooyu yëpp maire yi war nañu jàngal xale yi jigéen yi ci loolu. Mm-hmm. paa yi tamit yow dégg nga ngeen ngeen seet seen doom yu góor. di waxtaan a ñoom di waxtaan ak ñoom. xale bu jigéen bu commencé gis règle. dégg bu demee tëdd góor rek doom bàngo mhm. biir bàngo loolu yëpp ñàkk xam moo tax loolu yëpp di am mhm. mais bu ñu leen jàngale ñu xam ne lii boo gisee lii yàlla def lii mooy matt nga am doom mhm. bul ñeŋeexee ak xale bu ji góor xale yu góor yi tamit war nañu xam loolu dégg nga suñu tabu yi moo tax lu bare paay ku am doom bu góor da koy seet kanamam est-ce que góor la est-ce que du góor man gis naa maire yi ñooy indi seen doom yu góor man de suma doom de kanam bi dafa tuuti nag eh, eh, eh, mhm. micro pénis la am ma ne ko yooyu am na ñoo xam ne bu ñu amee yaram micro pénis koy mhm. dégg nga mais bu yaram bi tasee dafay ñëw mais ce qui est important ki père de famille wax naa ko plusieurs fois mhm. il faut ngeen seet pour xale bi c'est-à-dire sa doom bu góor bu góor mhm. bu ne ñaar xeer yooyu ñu ngi foofu mhm. ñu xam bu fekkee ne nekku fa mhm. yóbbu ko kii ci eh, docteur yi ñu seet ñu wàcc ko parce que am na feebar boo xam ne bu ñuy wax crypto kidi mooy ne yi ñaar nen yi dañuy dugg ci biir du génn ki mbuus bi loolu bu nit ki màgg ak loolu pour am doom problème la day jafe mais bu ñu ko teel a avant sept ans docteurs yi mun nañ ci dara fajkat yi mun nañ ci dara. loolu conseil laa bëgg a lancer pour nit yi kii def attention. Mhm. surtout suñu maire yi suñu maire yi ñooy gën a sawar seet seen doom mhm. mais pas yi ñoom joxe dépense rek la ñu xam. loolu nag c'est pas bon. mais xam nga Pa Pa Gawsu on a beau mm. wax pour que ni parents mm-hmm. ñu wax ak nga xamante ni ñoom ñooy seen doomu jigéen yi mais day mel day am benn complexe parce que boo toogee di waxtaan ak sa yaay yenn wax yi sa yaay du nangu sax nga koy poser yenn questions yi par rapport ak li nga xamante ni moom mooy xale xam dafay laaj mm-hmm. war na xam voilà pour terminer voilà c'était ça xam nañ ko wala euh, jëlee nañ si njëriñ euh, Pagaosu le mot de la fin le mot de la fin mm-hmm. mooy loolu rek maire yi nañu góor-góor yi waxtaan ak seen doomu jigéen yi paa yi nañu wóor waxtaan dëgg la parce que eh, doom bu góor surtout jamono bu nekk léegi mm-hmm. bu demee aaya tuuti football rek ne star la xale yi jigéen yëpp dañ koy wot mm-hmm. dégg di di di parce eh. mm-hmm. que loolu nag war nañu ko éviter xale yi jigéen yi ku am règle mu xam ne mat na am doom na moytu xale yu góor yi dégg nga paa yi nañu bàyyi maye seen doom fuite de responsabilité bi la waaw loolu dañuy daw seen responsabilité yi donc doom nu mu neexee mos nu mu mat métti métti métti bu il faut pas te débarrasser de ça parce que tu as vu quelqu'un parce que tu as une de moins ànnu nourrir waa nañu góorgóorlu dégg nga naxante ak suñu doom yi dañuy am au moins dix huit ans. merci ah, Gaoussou ah, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax benn àjjuma incha allah. merci merci maa ngi gërëm ñëpp et vraiment tey je suis content parce que je pas eu d'attaque de de mon rival là. Et il est toujours sage avec moi. il t'a écouté religieusement. m'a écouté religieusement. Mm. je crois que lu may wax nii ça l'intéresse beaucoup. donc maa ngi dire merci à tout le monde et surtout à Mariama Sambou suma patron. Mm -hmm. à Mariama Diémé suma sa xol sa xol suma xol. Mhm. ak sa caabi à Awa Djiba suma chéri borom caabi <laughs> waaw caabi kon su mu ne caabi rëy na mu ne. dina la mere ba caabi réerul mu ngi wax naa ko. mu ne am na ku for caabi <laughs> ah, ah, am na ku for caabi de <laughs> caabi réerul am na bëgguma woon wax yaa ngi may attaque. am na ku ko for photocopie la. titi moo ko for. mu nga fële. for for arrêté jaal mbay. for na ko de. <laughs> photocopie la loolu. ah photocopie la merci beaucoup Amina ñu ngi jaajëfal. Euh, Marou tey li leen indi woon par rapport ak seen rubrique santé ñu doon waxtaan tey ci li nga xamante ni moom mooy lu mariage précoce nekk na phénomène bu nga xam ne bëri na surtout si ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen loxo matu si seen ginnaaw à chaque fois comme on a l'habitude de le dire la lii pauvre et fertile ba tax na dañuy daal di jël seen doom yi rek maye leen alors dañuy tàggatoo balaa may tàggatoo.